ah sànq ma gis xale yi ñëpp di la diw seen soxla nga leen ñaanal. loolu na la lay def. jërëjëf sant yàlla àdduna moo amul solo chef bi ñun ah, ay ay nit lañ comme ñëpp rek. la. moo euh, buñ la defee dara. xam nga ne waa Fass kontaan nañ ci yow. waaw maa mais tamit. waaw ah, jërëjëf naka te xaas du xaasu waa géej waaye ku gi dong. xaasu yéen la journaliste. Ah, a yéen a moom. merci beaucoup mbokk internet suivre ko TV comme ni gisee noonu. Euh, Diop Xaas mu ngi noonu. Diop Xaas mu ngi noonu di dem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 doxuñu xam ne dafa am njaboot am yaay am pap am jabar comprendre nga bàyyi lu bëri nag ñun waa Fass comprendre nga ñu ko lii quoi ñun dañ koo jàppale ba mu tol fu mu toll nii mu ngi mu ngi ñu dem instant yi amuñu ñu leen la ñuy ah? ah? ñuy tooñ quoi parce que waaw day day ñun ñun carrément mënut xajatuñu fu ko gungee mu toll fu mu toll nii instant nii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 mais de foog mu bàyyi lii bu ko nekk roi par force. par force tamit day day day bàyyi boîte waaw. mais Zab. waaw ah, ah, ah, est-ce que. Mhm. waaw non ñaari combat yu ko dese. mun naa nekk xam nga lu yàlla moom kenn mënu ci dara moom mun na gis jaar jaarom moom moom mu nga gisee noonu yàlla yàlla dafa am lu moom. waaw mais mais mais fi may ñëwee. Ada Fass day wax benn mot ne damay bàyyi làmb est-ce que nekkul ne dafa nekk ci semaine bu bàyyi li nga xam ne moo di làmb ji moo tax muy def sedd yi n'importe bu bàyyee noppal ñu de. moom moom fa mu bàyyi bu bàyyi ñun dañuy noppal xam nga li ñuy daj nii dafa métti man tey man xam nga ñu jàpp Ada Fass mu ñëw taxaw fii di wax loolu gënalu ma naa toog sama gàlle gérer sama njaboot comprends nga maanaam Ada Fass ko mu ñëw fii di taxaw di wax loolu man bëgguma ko en tant que taskatu ñuy jëfandikoo ak yooyu noonu est-ce que euh, da nga moom Ada Fass du ko def pour vous dire affaire ñàkk fayda saa du ko def du ko def wax dëgg fa yàlla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 non ñëw ñëw zap ah. barki Seydina Mouhamad billaahi wallaahi mbër fu ma ko fu ma teg bu fekkee teg naa fa nit yàlla naa dee zap yow xam nga li ñuy jooy ñun ay doom Fass lañ ah, ah. billaahi wallaahi ñun buñ naree cuub suñu drapeau ñun nax lii ñun yàlla bu ñu am barki Seydina Mouhamad mbër dafa war xam ne ñun suñ jëm bopp ñu dafa am fuñ ko teg mm-hmm.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 jërëjëf waaw sama sama dernier mot mooy euh, di masaw ñëpp nag di maxlu axlu axlu làmb di masaw waa Ndakaaru précisément waa Fass waaw di leen ne carrément seen doom am na problème mais incha allahu rabi euh, dinañ dinañ ko bàyyi ndax euh, problème bi ñun dem nañ ba waxtaan ak ñu ñu war a waxtaanal ba gars yi nee nañ carrément incha allahu rabi waaw ñu ngi tuub di jégalu nag quoi parce ñun wax dëgg fa yàlla lii lañ mën mooy Ada Fass am problème nekk ci bànneex ñu wane ko nekk ci nakar ñu wane ko loolu lañ mën quoi. waaw wax nag dafa metti ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax waaw jërë ngeen